aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaaniirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci fukkeelu jotaay ak juróom ci téere bii di xalimag leer tey nag nu ngi dugg ci beneen bunt muy ñaan yàlla ci xasida yi dañu jiital nag wax njëriñi ñaan door dikk nag ci ñaan ci xasida yi nu mu demee ñaan mooy E, jàmm bi ci boppam wane aajawoo gu mu aajawoo boromam di sàkku ndimbal ci moom mu ànd ak rafet rafet njort lool ca la muy ñaan ngir xam ne yàlla mën na lépp te moo sàkk lépp sunu borom wax na ci alxuraan ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci alxuraan ne ko bu ma la sama jaam laajee nee leen man ku jege laa te képp ku ma ñaan dinaa ko wuyu ci ak ñaanam wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daani ba tey sunu borom nee xanaa du moom sunu borom mooy kii wuyu ku loru bu ko woowee ci aajo am may yujibul mutarra ida daahu sunu borom nee ne ñaan leen ma ma nangul leen uduuni astajib lakum yonent bi salallaahu alayhi wa sallam nee ñaan mooy dëgg-dëggi ak jaamu yàlla xeeti ñaan yi sëriñ bi di def ci ay xasidaam bu nu seetloo nag sëriñ bi lépp loo xam ne da sant boroomam lu mu ko ñaanoon la ci ak njëkk ba sunu borom defal ko ko xasida yu njëkk yi ñoo ëpp ñoo ëppi ñaan yu mujj yi yu mujj yi moom daanaka lépp ak kent lay doon mu mel ni kon day sant sunu borom ci li mu ko ñaanoon ba mu nangul ko ko waaye sëriñ bi moom day ñaan yàlla ñaan goo xam ne gu matale lay doon waaye day doon kuy toroxlu di tawasul maanaam di jottali ko nit ñu baax ñi mbaa yu mag yi ngir sunu borom euh, wuyu ko ci ñaanam bu ñaanit du bàyyi dara ci ak ñaanam lépp lu am njariñ dana ko ñaan lépp lu mat a muslu yi dana ci muslu bayoo sax li nga xalaatul woon ci sam xel te boo ko xalaatoon ñaan ko moom sëriñ di koy ñaanaale ci biir ay mbindam xoolal xasida gu mel ne sindidi na mu cay ñaanee ak na mu cay musloo xasida ak sindidi bokk na ci xasida yi sëriñ Tuubaa teel a bind lool ndax jiitu na 1301 mën na noo wax ne xasida yi ñuy jàng ci jamono ji mooy gi ci jiitu nee ñu bi mu koy bind ñaar fukki atam ñaar fukki at rek la am ci la tolloon maamam ji tudd soxna Aysatu Mbàkke nu gën koo xam ci soxna astawaalo moom la ko bindaloon booba dafa fekk soxna si daan jàng muslaay gu tudd asayfiyu euh, sëriñ bi it euh, lu yërëm ko ci euh, muslaay googu yàggaay beek ni muy mette bu koy jàng sëriñ bi daal di koy bindal xasida ak sindiri li njariñ la ne ca Euh, sayf yu ak lu ca nekkul lépp sëriñ bi daxañee kooku ci biir xasida ak sindidi bi ko sëriñ bi ko sëriñ Tuubaa joxee moom soxna si nee nañ bu ko daan jàng ba nit di ñëw sax da koy nëbb ngir booba sëriñ bi ay atam daa néew te téere bi am solo lool mu bañ nit gis ko di ko laaj ku ko bind mu di ko wax ne ko sama sët bi ko bind sindidi ay bayitam toll na ci juróom fukki bayit mu làmboo ay ñaan ak i musulaay di xasida gu baax lool ci kaaraange anam gi ko sëriñ Touba bindee mooy dafa def li ñuy wax tawasul tudd na ci lenn ci yonante yi lenn ci malaaka yi tudd ci saxaaba yi ak wàllu nit ñu baax ñi daal di cay gën a ràññeele nag ci biir saxaaba yi ñeenti saxaaba yu mag yi muy abu Aboubacar Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliou ginnaaw ba mu indi ñeenti imaam yu mag yi ci fiq muy waroom ngir yu siiw yi. imaam abu xanifa imaam malik imaam shafii imaam ahmad ibn hanbal euh, mu tudd ci it lawhul mahfuus ak aras kursi yi bokk na ci nga xam ne sëriñ bi tudd na ko di ci tawasul alquran tawraat injil ak zabur mu tàmbali ay ñaanam nag ginnaaw bi mu jullee ci yonante bi salallaahu alayhi wa sallam ñaanalaale ay ñooñam ak ay saxaabaam ak waa këram ñu jigéen mu tàmbali ay ñaanam lenn ci yi nga xam ne sëriñ bi ñaan na ko ci biir xasida gi ak yi nga xam ne eh, mi ngi ko ci muslu ngir sun borom dàqal ko ko dinañu gis ci xaside gi lu doy sëkk lu nu mën a ñaax ci ñu koy jàng ndax mbooleem li mu ci tudd lépp ku bëgg lu baax yitte woone ko mboolem yi nga xam ne day bëgg sunu borom dàqal ko ko eh, ku ku nekk bëgg nga sunu borom dàqal la yooyu sori la ko bokk na ci yi muy ñaan yàlla jàmm amuk ubbeeku bunt yëpp suñu borom ubbil ko bunt yi ubbiloon nit ñu baax ni mi ngi ci ñaanit doon jëmm ju sóobu ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi te yàlla matalal ko lépp lu yéeneem ak jubluwaayam mi ngi ci ñaanit lépp lu mu tànn suñu borom defal ko ko ak suñu borom defal ko ak jàppandal ci mboole mbir yu jafe yëpp mi ngi ci ñaan gudd fan ak wér akum jub ak tawféex ak xol bu ragal yàlla ak xam-xam bu bari njariñ ak tuub gu ñu nangu bokk na ci nga xam ne sëriñ bi da ci muslu ci biir xasida ak sindid yi mucc ci noon yi ak balaa yi mucc ci ak ñàkk ak coono ak ak torox ak ak nooteel mucc ci mar ak xiif ak fitna ak balaa mucc ci ak lakk ak lap ci ndox lori melax lori sàcc mucc ci ayu sedd ak ayu tàngoor mucc ci xeetu réer ak mbugal ak njàqare mucc ci saddum jinne mucc ci tawat ak ngaana mucc ci ayu iñaan ayu ko iñaan ayu gémmiñ ayu bët ayu njabar mucc ci mucc ci ayu nit ak jinne ak ayu tooke mu ngi ci ñaanit sunu borom def xolam ak làmmiñam di tudd yàlla ci buy faatu ñaanaale na ci ay waajuram ñaanaale ci jullit ñëpp euh, noonu muy ñaane nag képp kuy jàng xaside gi ñaan yooyu yaa ngi koy defal sa bopp kon loolu lu mat a fonk la te mat a bàyyi xel la kon noo ngi yem foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu